Euh, l'Observatoire national de la jeunesse, mais avant, vous avez eu à diriger euh, la convergence euh, des... des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Étudiants et jeunes diplômés. Tout à fait. Mais pas jeune diplômé chômeur. Hein? Non, diplômé. <laughs> diplômé, diplômé tout, court, Avec ou sans emploi. Voilà. <laughs> Exactement. C'est un plaisir de le recevoir. Ça fait pratiquement une année donc que nous échangeons parce que c'est un combat qu'il porte. Il fait le tour du Sénégal pour recenser, répertorier ces jeunes diplômés. Et il se bat pour qu'ils puissent trouver un emploi, une occupation. Euh, question de parvenir et donc de s'épanouir suite à une formation bien menée. Euh, Mme Kewe, je dis Mme Kewe, hey, eh Kewe ouais. est également sur place, <laughs> ça va. C'est Mme Kewe aujourd'hui. tey maam Kébé laa tudd amul problème waaw non mais xam nga maam Kébé bon je pense à mbokku a a baax baax <laughs> di kontaan bu ak yéen benn maxtaan c'est normal nga juum parce que da nga maa lakkal c'est normal. waaw non mais xam nga dem j'étais avec Babacar Dione donc euh, j'avais trois <laughs> bureau donc euh, moom lu nekk la lay wax quoi c'est c'est c'est pourquoi Babacar Cheikh euh, le fou rire quoi donc. je les comprends bien. Alors, euh, Mamadou, oui. euh, on a vu cette jeunesse sénégalaise mmh. accompagner euh, l'équipe nationale, euh, l'accueillir triomphalement. Euh, c'était un message d'espoir quelque part, euh, comme pour dire ce que nous voulons, c'est réussir dans notre pays, travailler dans notre pays, être avec nos parents. et parvenir dans ce pays. Euh, vous, quand vous avez vu ces images, euh, quel a été votre sentiment Est-ce que vous vous êtes dit que oui, cette jeunesse sénégalaise mérite d'être accompagnée pour pouvoir euh, véritablement réussir ici au Sénégal voilà, merci beaucoup euh, Ben pour euh, d'abord l'invitation. Merci beaucoup madame. Merci. Donc, euh, les jeunes ont montré, c'est un message fort d'abord. C'est un message fort émanant de la jeunesse. C'est un message fort à l'endroit de nos gouvernants. C'est un message fort pour montrer à nos gouvernants que cette jeunesse-là n'a plus, c'est-à-dire que le droit, il n'a plus à, à montrer son patriotisme, il n'a plus à montrer son engagement. Il y a un mot que le président a repris, que les jeunes chantaient, qui veut dire « à décourager ». Mm-hmm. donc amul découragé ça tout dire ça veut dire que ces jeunes là aiment leur pays aiment rester ici au Sénégal aiment travailler et développer leur pays donc pourquoi des fois on entend des jeunes qui prennent la mer c'est parce qu'ils n'ont plus le choix mais s'ils avaient ce choix là et avec ce qu'ils ont montré ils auraient resté ici au Sénégal donc c'est un message fort qu'on doit nous tous décortiquer en fait

Kaolack où l'essentiel de l'actualité reste la marche de l'opposition. Arlou ah, Bok a battu le macadam dans les artères de la ville de Mosekou Modjiguen. Ces derniers réclament une meilleure gestion des contrats sur le pétrole et également il indexe certaines autorités administratives de vouloir saboter les manifestations. Jokel Kanyaga a porté les paroles. manifestation a été sabotée par l'autorité administrative. Parce que voilà l'arrêté que le préfet de Kaolack nous a remis. On avait demandé de démarrer à partir de 15h jusqu'à 19h. Le commissaire central qui a fait un travail extraordinaire, qui nous a appelés, qui a fait le travail avec nous. Le dossier est retourné à la préfecture. Le préfet sur lui a la responsabilité de nous donner 15h, 16h30. Et quand je suis allé le J'avais cru que c'était une erreur de frappe ou de saisie. J'ai dit, dit, au préfet que c'était et impossible. Connaissant bien Kaolak, avec ses 39 ou 40 degrés à l'ombre, une réunion à 15h ou faire un rassemblement à 15h, c'est impossible. Il fallait décaler. Deuxième sabotage, la Sénélec. Nous avons payé depuis vendredi pour une descente de courant. La Sénélec n'est pas venue le vendredi. Aujourd'hui, la Sénélec n'est pas venue. Je suis allé à la Sénélec, je n'ai trouvé personne. Quand on bouclait, par contre, la plateforme Arsunou Réou en tournée nationale, hier ils étaient ici à Kaolak, sont allés rendre visite l'imam de la grande mosquée de Medina Baye, Cheikh Ahmed Ali Sissé, euh, c'est pour conscientiser euh, ces guides religieux pour ceux qui veulent déstabiliser de ce pays. Adam nous donne ici les raisons de sa visite. La plateforme Sam Suñu Réew est dans le cadre d'une tournée inclusive d'information vers les guides religieux à l'intérieur du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack après avoir quitté Touba et chez les Layènes à Dakar. Et après Kaolak, nous, aurons, nous allons vers Giguinchor et l'intérieur du Sénégal et Tuaon pour rencontrer les guides religieux, pour rencontrer les personnalités de ce pays, pour le, échanger avec eux, leur parler c'est quoi exactement le Sam Sunurem. C'est ça que nous avons vu. Et depuis que nous avons commencé cette démarche, nous avons vu une adhésion massive des personnalités religieuses de ce pays à travers les déclarations qui existent. Et nous avons vu une fiasco totale par rapport la manifestation de l'autre n'est-ce pas parce que le sàmm suñu réew est une plateforme qui fait dans une démarche explicative inclusive donc c'est ça la raison de notre venue au niveau de Kaolack parce que quand même nous sommes des citoyens sénégalais imbus de toutes les valeurs qui aujourd'hui quand il y a une situation qui se présente doivent tenir un langage d'information et d'explication à la population sénégalaise puis Ben, nous nous rendons à Guéguénéo pour assister à un panel sur la conscientisation de la jeunesse pour un changement de comportement. Pour cette année, le thème choisi reste civisme et développement local. Madame Mam Doumbesek, elle est la directrice du CELEPS de Guinée. Elle revient ici sous l'absence de sa panel. L'objectif de cette panel, c'est de sensibiliser la cible jeune, la conscientiser pour un changement de comportement. Parce que vous êtes sans savoir que maintenant, l'incivisme est constaté par tout un chacun. Et comme je l'ai dit tantôt, on a un devoir, une partition à jouer sur cette affaire. J'ai constaté personnellement que la levée du drapeau n'est pas respectée par certains jeunes. Je veux dire, si je prends mon exemple, j'ai un service qui est implanté dans un quartier. Mais quand nous faisons la levée des couleurs, les élèves passent, ils ne s'arrêtent pas. Au début, je l'ai constaté, je le sais faire, mais à la longue, je l'ai demandé d'arrêter leur disant c'est la levée des couleurs, notre emblème national, arrêtez-vous s'il vous plaît pour marquer ce temps fort. Mais il y a aussi, je peux dire, la délinquance juvénile qui est très accélérée, très accentuée. L'histoire de, du tabagisme, l'alcoolisme, les grossesses, sexualité précoce sont là, les accidents de circulation, les viols, les agressions qu'on qu fait à l'encontre des femmes, tout ça aussi c'est noté, c'est remarqué, d'où l'intérêt vraiment d'agir pour stopper ces comportements qui sont inciviques. Ben, c'est tout pour l'actualité ici à Kaolack. Merci d'avoir suivi. Je vous rends Merci à vous, euh, Shérif Cham. Euh, On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de Direct Région Kaolack. Demain, nous serons avec Gustave Emmanuel Fay de Thiès. Très de la part de nos correspondants. Je n'oublie pas les cadreurs, les caméramans qui sont derrière pour la réalisation euh, donc de ces euh, duplex. Alors, euh, quelle est mon question par rapport à waaw amoon naa benn question parce que comme que ñun dañu lancé mon projet mon avenir te on voit qu'au Sénégal wax dëgg yàlla y a beaucoup de jeunes yoo xam ne ils sont diplômés mais xamuñu nan la ñuy def ba am liggéey amuñu chance aussi pour liggéey donc yéen comment est-ce que vous faites pour accompagner leen ba ñu mën a am liggéey mënu mën a xam fan la ñuy teg seen tànk d'abord maa ngi lay féliciter ci initiative ba nga jël parce que ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy tàmm di wax le problème de l'emploi doit être considéré comme une cause nekk def ci jox valeur ajoutée pour xool naka du ñëpp lañ koy lijjantee. Mm-hmm. parce que kenn yorul caabi bi moom kese. <laughs> donc d' abord ñu ngi lay féliciter di la encourager si loolu. donc nous avons un concept qui s' appelle IFOA donc IFOA et accompagner. état teg na fi qui accompagnent les jeunes à avoir de l'emploi mm-hmm. mais comme on le dit l'information est une denrée périssable si on ne dit pas à temps elle perd dans le temps c'est-à-dire que tey le jeune qui est à maintenant yor Fala Kolda bu xamul tey naka ngay def pour bénéficier wu si financement yi nekk DER mais 30 milliards yi ñuy wax fa lay toog ren <laughs> dafa bouger c'est vrai donc il nous appartient à nous jeunes diplômés dans le cadre de ce pays ñu dem si jeunes yooyu mm. expliquer leen d'abord yan dispositif la fi état teg loo xam ne amal na leen njëriñ en termes de formation et en terme de financement okay. d'abord bi ñu ko xamee ba pare ñu former leen mm-hmm. donc ñu wax leen lii naka nga koy d' abord da leen di informer wax leen la moo fi nekk ba pare. bi leen informer ba pare ñu former leen si loolu. bi leen former ba loolu noonu ñu maîtriser ko ñu orienter leen ñu mettre leen en rapport avec des consultants des jeunes diplômés comme nous qui vont les accompagner à écrire leur business plan. Exactement. parce que sans un bon business plan mënoo am financement. ah oui ça c'est sûr. d' abord la formation xam nga lan moo am lan la fi état boo ko amee noo koy noo noo koy traduire. noo noo si am nga business plan boo xam ne tey tey jii nii mun na la permettre nga dem si structure yooyu noonu pour mën a bénéficier au financement. Mhm. parce que may rappeler ñun suñu rôle c'est quoi c'est inciter les jeunes à de à ne plus de à ne plus être des demandeurs d'emploi ñuy wut liggéey mais les employeurs de leur propre emploi. Ah ouais. donc ku doon wut liggéey. mun a doon tey ku amal boppam liggéey. mais doo fa yem. Mhm. je crée de l'emploi pour moi et je donne de l'emploi pour les autres. donc loolu moom mooy sunu concept mhm. je je ne suis plus un demandeur d'emploi j'étais un demandeur d'emploi aujourd'hui je suis l'employeur de mon propre emploi mhm. j'ai créé de l'emploi pour moi et pour les autres loolu nag bu nekkee si ay wax kase dafay neex. dafay am le parcours de l' entrepreneur. Mm-hmm. et dans le parcours de l' entrepreneur y' a d' abord l' information. Mm-hmm. qui est aujourd'hui très essentielle. Mm-hmm. après y' a la formation après y' a l' l' accompagnement dans toute sa dans sa chaîne de valeur nga am business plan. boo amee un bon business plan nag ñu orienté la tey jii si ñoo mën a financer sa business plan boobu noonu. ba nga mën a teg sa structure. ba teg sa structure boo tegee na s structure ba pare. ba devenir un véritable chef d'entreprise un véritable capitaine d'industrie léegi nag ñun lan leen si gagné li si gagné mooy tey yow boo dëkkee exemple jaxaw a Fatick ñu accompagner la ba nga am loolu teg sa emploi bopp benn jeune bu jógee Fatick ne moom daa bëgg emploi bëgg stage bëgg lu muy pratiquer dañ koy envoyer directement si yow léegi sa entreprise boobu noonu fa lay defee pratique c'est ça la convention bu ñuy am yow mi nga xam ne demande d'emploi nga ak l'observatoire national de l'emploi par rapport à l'accompagnement bu nekkee jeune bu dëkk tey Kër Massar fii nii à Dakar bu ñu ko bu amee benn si ñun dañuy xool suñu base de ne ko ah benn de ñu ñoo ko woon tey am na structure am ñu accompagner ko si benn defar ko lettre defar ko lettre d'accréditation bu demee benn jël ko benn bu soxlawee ay employé bu soxla ay agent yu yu muy jël balaa muy dem si net bi di def annonce wala muy dem journal. Hmm. ñun lay njëkk a laaj. ndax am ah. ay demandeurs yoo xam ne ñu ngi correspondre ak moom tey agent bu muy. bu mais xam nga lii lii jeunes Sénégal yi ñuy suivre yëpp problème yu di poser bu ñuy di réagir mooy euh, parfois garantie bi. dañ naan leen DER am na cent milliards tey euh, président la république def ko fi teg pour jàppale leen ngeen mën a liggéey mais euh, heure bu ñu réagiré rek dañ naan ni. ñun amuñu garanti amuñu titre foncier amuñu oto bu ñu joxe donc ku amul garantie euh, nan ngay demee si ah, ñooñu. est-ce que loolu itam nekkul benn goulot d'étranglement. waaw comme une bonne une question loolu mooy premier frein. ba nga xam tey moom moo sonal tous les jeunes entrepreneurs potentiels c'est-à-dire que problème mu bi yàgg nañ ko yàgg nañ ko yàgg nañ ko soulever mais comme on dit yëf boo ko bëggee doo si xaar da nga siy fekk tey ñun on crée pas des des entrepreneurs individuels. non c'est des c'est des groupements d'entrepreneurs. Hmm. te yow boo ñëwee yow kase nga am sa projet dañ lay booleek ñeneen ba nga nekk cinq ou dix. ok exemple ñu bindal leen projet ñu xool naka la ñuy amee capital. boo xam ne li ñu bëgg d'abord da doon capital propre. bu amee capital propre boobu nag moom lañuy présenté tey jii nii si structure de de de de de financement yi te yemuñu kese si si Sénégal parce que y' a beaucoup d' organismes qui financent y' a beaucoup d' ONG qui financent y' a beaucoup de forums y' a beaucoup de concours de forums aujourd'hui temps yi leen jógee woon Paris gagné suñu on est revenu avec 10 millions. on était jëloon ni premier mais jël nañ deuxième avec un projet qui s'appelle Aywa Jën. Aywa Jën Sénégal leen toog. ñu dégg ne am na benn concours de projet bu am Toulouse. ñu postuler bi ñu demee ñu défendre suñu suñu suñu suñu suñu suñu projet ñu jël ñu jël deuxième on est venu avec les 10 millions 10 millions capital la. Mm. moom leen teg instant yii am na 15 personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ay ay wa jën tey yow mii. boo bëggee jën jaratul ngay dem marché da ngay dugg net bi ci tab ay wa jën indi la ko ba sa buntu donc ça c'est des initiatives yoo xam ne ñun observatoire ñun ñoo ko mais est toutes les opportunités tey yi am parce que ya de très nouveaux métiers. Mhm. yoo xam ne à la limite numérique bi moo leen ko may. Mhm. Euh, a des métiers qui changent. y a Absolument. des métiers qui vont disparaître. am na yoo xam ne que ni dafay ñëw surtout les start-upers yi egsi sur le marché. Mhm. avec ñi ñu tuddee bu fekkee wàllu élection les primo-votants ils ont entre dix-huit vingt-cinq ans. pare nañu. pour liggéey bëgg nañu dem mais souvent ku si nekk da ngay demandé wu mais fan laa war a jëm te pourtant xam nga ni bëgg nga le potentiel est là am amul découragé boobu c'est que le courage il est là la volonté il est là mais parfois fan laa war a wu est-ce que dans dans le cadre de la formation yooyu itam ce serait pas bien que ñu ne leen les secteurs porteurs pour les dix ans les quinze ans à venir fii la fii la nekk tu sais euh, yow fekkee nga ko chaque année on organise la caravane des grandes écoles pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat mm. l'objectif de la caravane c'est d'aller dans une région. C'est inviter aujourd'hui tous les jeunes diplômés, cadres, encore une fois, de ce pays, dans une région. Mmh. L'objectif, c'est de détecter les potentialités et les opportunités qui sont dans cette région. Après, écrire une plateforme sur laquelle les jeunes de cette même région pourraient, en s'amusant, écrire leur propre projet. Mmh. Kédougou. Kédougou, def ay plénière. toog xalaat yan potentialité ñoo nekk Kédougou yan opportunité yan la tey ndaw bu nekk Kédougou mën a loo xam bu si investir dina si mën a emploi boo xam ne emploi durable et emploi lay doon bi ñu xamee loolu noonu yëpp ñu bind ko si benn plateforme boo xam ne jeune bu dugg jeune bu dugg Kédougou bu dugg si plateforme boobu na ah bu ma naroon def tey pisciculture xam naa ne dëkk bi doxul ndax y a pas le marché. Hmm. mais lii ak lii ak lii nii dox na. donc mu am d' abord l' infor l' infor l' information. Hmm. parce que l' objectif encore une fois de tout cela c' est d'inverser la tendance. Okay. c' est pour qu'on mais qu'on puisse parler de l' exode urbain. si kaw loolu nag loolu moo tax ñu def chaque année la caravane des grandes écoles pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat boo xam ne dafay réunir aujourd'hui les cadres yu nekk Cheikh Anta Diop yu nekk université de Bambey université de Saint-Louis INSTA de Thiès et benn région pendant toute la semaine de la jeunesse réfléchir détecter potentialité yi jox ko ndaw yu fa dëkk nga xam ne ndaw bu dëkk tey exemple tey mel na euh, bu dëkk tey ñombatoo à Fatick jaru liggéey ndax xam ne fu mu nekk am na fa potentiel parce que xale yi rek mooy l'information dama la wax sànq c'est une denrée périssable si on ne dit pas à temps elle perdra sa valeur dans le temps pour wax la ni am na métier boo xam ne mun na nekk tey en vogue ñu xëy suba métier bi disparaître donc moo tax il faut donc ñu mettre l'accent d'abord sur sur l'information sur l'information parce que parce que parce que euh, booy di xool assez souvent euh, on a parlé du euh, du problème de la garantie qui est un Absolument. véritable goulot d'étranglement on a parlé de ces nouveaux métiers dégg naa la nga wax ci mbirum business plan euh, man boo ñëwee ni ma defal ma business plan parce que business plan mooy tax sa projet banque mën ko jël. absolument xool euh, li nga def les plans de trésorerie annuel pluriannuel plan d'amortissement euh, xam yan fonds de roulement. à partir parce que c'est vraiment technique. absolument kooku un comptable un spécialiste du montage de projet moo koy def. tout à te tey jeune bi ko bëgg mais il lui faut au moins un tout petit peu d'argent pour pour ñu defal ko ko. Mm-hmm. bon xam nga xam nga bari na ay gros d'étranglement euh, si un jeune sénégalais tey bu am diplôme ba pare bëgg liggéey wala bëgg lancer parce que jeune sénégalais boo fi gis mhm. dans sa tête y a au moins deux trois idées yoo xam ne daf koy wóor ni bu amoon tuuti xaalis dem yoonam absolument cette question-là le, le le directeur général de l'UNFPA nous l'a posée cest à que et c'est partout hein quand on dit ce que vous faites vous le faites pour qui parce que quand on dit on le fait gratuitement les gens nous regardent ah ouais. gratuitement euh, Sénégal pour ñoom kenn def dara <laughs> que la nation a produit, la nation a investi sur nous. On est allé à l'université, on a appris gratuitement. Mm -hmm. On s'est dit on a une obligation, un devoir d'apporter notre valeur ajoutée pour le développement de ce pays. On ne le fait pas pour, pour l'État, on ne le fait pas pour, pour nous, on le fait pour la future génération. On s'est dit que nous, dañoo am lu ñu war a rendre tey li ñu joxoon moo tax ñuy dem tey région par région. Mhm. c' est vrai que un business plan c' est c' est payant da ngay fay. on le fait gratuitement. l' information bi ñu lay jox. la formation la jusqu'à nga am sa structure bopp on le fait gratuitement moo tax ñu ne que le problème de l'emploi parce que ñun on peut pas tout faire on dit que doit être considéré comme une cause nationale ku nekk si sa côté nga xool lan nga mën a apporter gis nga tey la grand bu dëkk si koñ bi xale yi di ko fan mënu leen jox dara le fait mu toog di leen motiver ba jaaxle yooyu muy toog dem toog rek naan leen lii nii du yoon bi di leen xelal di leen di leen xamal lan moo am suba lan moo seen avenir kooku sax mu ngi participer si processus création d' emploi. Mm. donc ku nekk rek fu nga mënee. ngay apporter sa valeur ajoutée ñun nag fi nu mu nee mooy comme dañoo demoon yàlla daf ñu dimbali ñu demoon jàngi université génn xam naka ngay tegee business plan xam naka ngay créer sa propre emploi xam naka ngay defee gestion comme fa leen comme comme fa leen fa leen fa la ñuy valeur ajoutée mais est-ce que Sénégal war ñu am benn mutualisation des des forces des fonds euh, la DER euh, côté formation 3FPT euh, l'agence nationale de l'emploi des jeunes euh, fonds de promotion de la jeunesse est-ce que yooyu bu ñu ko boole woon tey mu nekk benn genre office national boo xam ni que ni c'est pour l'emploi des jeunes ñu amul politisation ni rien est-ce que loolu gënul woon nga xam ne nit ki bu ñëwee euh, du tout en un lay lay doon. fii dinañ ko fi informer fii dinañ ko fi former fii dinañ ko fi euh, euh, mën a financer fii dinañ ko jàngal nan lay driver son son projet est-ce que ce serait pas plus pertinent. vous savez en en 2012 quand le président nous a nous on avait proposé l'observatoire national de l'emploi Le Observatoire national de l'emploi, c'était ça. C'était de rationaliser tout ça. De 2012 à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. a, on a créé, national de la jeunesse. Okay. Et on essaye suñu côté li ñu xalaatoon ak li ñu proposé woon état mu def ko te def gu ko ba léegi ñu xool ñu naka lañ koy defalee suñu bopp ak suñuy moyen bopp pour wax ni ret xaaruñu si kenn li ñu bëgg ren mooy éveiller jeunesse bi éveiller ndaw ñi. ñu xam ni que Sénégal amul découragé. <laughs> loolu de na. dafa mel ne léegi loolu moo doot la la nar a doon <laughs> donc dans le cadre de mon projet mon avenir euh, dafa nekk loo xam ne dañ ko sur la page officielle de de l'émission mm-hmm. pour jeunes yi nga xam ni que ni am nañu projet nekk surtout parfois très loin de Dakar. te xamuñu fu ñuy jaar que ñun ñu mën leen servir de. courroie de transmission. Mm. Euh, par rapport à ces structures là mu nekk une plateforme. bu 2STV di di offrir les jeunes du Sénégal. Mm-hmm. ñu nekk à la limite ñun euh, euh, seen mur de lamentation par rapport à euh, ce cri de cœur parce que les jeunes ne demandent que ça. ku si jàng ba pare <laughs> bëgg nga au moins liggéey. taxaw say waajur taxaw sa bopp. li Abdou Guité Seck di wax doom bu fekkente ni que ni euh, jëruñu la sax. au mhm. moins mu noppal la. absolument waaw ku nekk bëgg nga noppal say waajur. Euh, jël sa vie en charge. donc c'est euh, c'est véritablement ça ñu xam ne que ni yéen a ngi si dox c'est la raison pour laquelle moi j'ai tenu à ce que nga ñëw sur le plateau partager loolu ak ñun ndaxte yenn saa yi dinaa la gis. ngay dox ma mhm. euh, li muy dox nii jël tànkam fu nekk mu dugg fa mënoon na ko def jëmale si boppam mais comme li nga wax c'est un combat citoyen c'est un combat citoyen mhm. euh, raison pour laquelle euh, dimanche je disais à la ministre de la jeunesse madame Fatoumata Tall qui sera notre invitée bientôt que véritablement on a besoin de de de l'entendre de l'écouter mhm. pour xam fan la jëm par rapport à cette jeunesse là ndaxte li xewoon samedi il faut que ñu transformer ko en énergie positive. Absolument. pour continuer. Mm -hmm. à euh, transformer ce, euh, ce ce rêve cet espoir de la jeunesse sénégalaise en des projets très concrets. en tout, tout cas ñu ngi lay remercier bu baax. Euh, Mamadou. ben man ma leen di remercier d' abord c' est une initiative bi ngeen bi ngeen bi ngeen jël. Mhm. cela veut dire que on est en connivence. bien sûr le problème de l' emploi doit être considéré comme une cause nationale ak képp ku mu fu munti nekk. lépp loo xam ne nga ko mën a apporter nga mën a xool noo ko si apporter par rapport à l'employabilité des jeunes donc parce que il faut le dire il faut il faut retenir cela le chômage est comme une bombe à fragmentation graduelle et si on la désamorce pas ça risque d'exploser et engendrer des problèmes socio-économiques graves te dëkk bi du ñoo ko moom du ñoo ko war a tabax ah. kon na su nekk na ku nekk xool lan la def pour dëkk bi jëm jëm parce que Abdou Macky Sall day émergence pour qu'un pays soit émergent, il faut que sa jeunesse soit en mesure d'être d'abord une jeunesse émergente. Et pour que sa jeunesse soit une, jeunesse émergente, il faut que le problème soit non, vraiment, on peut régler d'abord. am kewe waaw ah, xam naa rek ñu joxoon rendez-vous jeudi ah, di di di tëj rek di wax euh, nañu envoyé seen i euh, projet euh, ci numéro bi nga xam ne moom moo nekk suñu suñu numéro téléphone mën nga ñu woo d'abord 70 103 03 51 ou bien nga envoyé ñu ko par mail evacom sénégal arobase gmail point com ou bien kewe 30 sen arobase gmail com donc loolu mooy ñaari boîte yi nga xam ne fa nga ñuy yónnee sa projet ah, incha allah à la fin de la semaine rek ñu def tri bi daal di xool kan la ñuy financer ak suñuy partenaire su ngeen ko gëmee mën na nekk suñu ko gëmee mën na nekk si avec la 2STV moom projet mon avenir sur ce on se donne rendez-vous jeudi incha allah ci beneen bërëb boo xam ne mu ngi ci biir Sénégal Merci, euh, mesdames et messieurs. Euh, merci à toute l'équipe technique. Ce qui m'intéresse et qui me plaît le plus dans cette émission Les Grandes Aires, c'est l'implication de toute la maison, de l'équipe euh, technique. Euh, chacun de son côté euh, apporte son grain de sel. Et la pensée du jour nous vient donc de celle qui s'occupe du son de cette émission, réalisatrice par ailleurs, Fatou Fall. J'aime bien sa pensée du jour. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Le mensonge donne euh, des fleurs, mais pas de fruits. C'est essentiel. Euh, dañuy koy wax ci wolof. Euh, wax dëgg bàyyi fen moo gën jàng alxuraan. Mm. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Euh, très bonne fin de pour le troisième numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de que nul ne le fera